di sant yàlla mi nga xam ne moo ñu dimbale kàttanal ñu ba ñu gàttandu président Macky Sall ci jàmm ba mu jàll ci jàmm loolu rek dèjà sant yàlla la alors bala maa sori fenn nag damay sant mboolem kilifa yi nga xam ne ñi ngi àndandoo ñun ñëpp teke suñ bopp boole suñ doole yi di liggéey pour dimbale président Macky Sall fii ci biir région muy sama xarit yii ak sama soppe yii ak sama doomi sang yii nga xam ne yàlla moo ma boole ak ñoom ñu ànd ak man ànd bu rafet buñ demee ci daara ji ñu wone ak sang buñ demee ci terrain bi ñu won ne kenn mënu leen loolu nag du doon lu may sant yàlla bu baax ndax damay wax ne àndul sëriñ yombut waaye ki nga ànd ak ab sëriñ loo xam ne amoo benn sikki ca ak cëriñam mu walbatiku lépp loo nekk du nangu nga man ko ca loolu gore la yaa ko jar loolu ngor maa ngi sant sama xarit yi bu baax a baax a baax di sant sëñ Aboubacar Niass mii ak Cheikh Tidiane Niass nga xam ne kaar macha allah def na jëf ju rëy yoo xam ne ñun ñëpp mën nañ koo seede ci nit ni ma bëggee bu ma defee dara ba pare ki may jëflanteeg bu ñëwee taxaw wone ne def nga noonu la doomu aadama bu nekk bëggee bu defee dara ba pare sentir ci boppam na def na kon ñii def nañ nuyu sëñ Xasan mii xam ne moom it ci parti la nekkoon yër flambeau bi waaye xëy ci ko dagg drapeau ba ñëw këf drapeau Macky Sall bi porté ko di dox ak moom di sant sëriñ euh, Khalil Niass di sant Baye Cissé Niass moom itam parti wala coalition la porté woon bàyyi ko dem di nuyu di sant itam sëynu Baye Ousmane Baye Ousmane moom itam di sant Imam Seyda di sant Cheikh Sow ñoom bàyyi ma kenn paye bi daal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyi ma kenn sant mboolem kilifaay diine yi nekk ci dëkk bi Serigne Babacar Mbacke mu kobbaroo gis nga ko lim def léegi bi président taxawee dafa forcé barrage bi ñëw taxaw lam ko répété moo lam ko répété woon ci stade ne ko président maa ngi lay wax ne yaa ilif ñëpp waaye man na nga xam ne njaay mi laa ànd ak fu ma yenn rek moo ma fa yendal loolu nag du ku nekk moo koy wax kon sëñ Babacar Mbacke mu kobbaroo maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal moom it barke baayam ak maamam yàlla na des ci ma paree ci yooyu nag damay ñëw ci sama bopp muy waa raxma yi nga xam ne dañoo ànd di liggéey guddi ak bëccëg ci ko seen coordonnateur ba Ababacar Ndour ku ne xam na ne sax bi mu yooyu ak léegi yàggu waaye sawarteem ak bëgg mbir mi moo tax doo ko yen dara bam na loo ko yen rek mu yen la ko naqadeeg la ko neex yëpp da koy boole parce que xam na ne mbooloo moo demee noonu maa ngi koy sant di jaar ci moom di nuyu mbooleem kilifa yi lu mën a xew daal Rahma moom gàcce ma ci kanam di Kaolack gàcce ngaalaama ci kanam président mbooloo mi kaar macha allah lépp luy war a def ci terrain bi ñu ngi maa ngi sant ñop di gërëm ñi